waaye Sadio moom dóoroon na ma am na solo déggu ma balaa nga may dóoraat. Modou nangul lool. Modou. sa waay nee na sëq sànni la combat bi sëq sànni. wax nga ko wax yow moom. sëq sànni la wax na nga wax eh combat bi sëq sànni la. ah ok am na solo yaakaar naa. yàlla ñu déggalal mais mbay ju moom ne dootu wax yàlla ñu yàlla sax na lay wax mooy borom dëkk bi ah defe naa loolu la mbay ju wax rek dégg mais yow tam yaakaar naa dégg nga li mu wax père Maxime yàgg naa ko dégg mu ne rëbb ca coow foo jam nit ku jam may la mu mel ni ñëw nga di ko ñàkkante di ko ñàkkante ba tey yegg si ba ñu bëri jàpp ne góor ëppatu la doole te dégg nga li mu wax maanaam seen wax ko mu confirmé ko mooy fa mu jaarale say morom muy Ama muy Boy Niang maanaam xeex ak ñoom gañ leen ci xeex daan leen ci lu loolu lay def loo koy tontu pii di yooyu. loolu mooy kàddu lu mu wax léegi. pii di yooyu. tarkinaa bi lii la soxla. kon lii man soxla wala soxla wu ma yeneen yi de bii laa soxla bii. bii nga xam ne Manga 2 moom la teg ci boppam. bii nga xam ne Yaya Diop Yékini moom la teg ci boppam. bii nga xam ne Mouhamed Ndao Tyson moom la teg ci boppam. waaw bii bii bii. bii nga ma seen teg ci boppam. bii bii bii. xam nga kii lu tax suñu làmb maa moom di neex. waaw dafa am lu nit ñi xamul dafa am lu jaar suñu diggante te barke alxuraan làmb lu tax ma dindi loolu mais ku bëgg a gis prix duur prix duur làmb joo xamante ne sama bakkan laay teg ndengeen sama yaram ñeme jam-jame suul tàgg yi nga xam ne tàgg naa bi ñëw moom laay bëree mais du ma ko dépassé parce que bi may ñëw ku ne làmb léegi xam nga la ma wax boo demee na nga jox Modou cër ngir yàlla. leen Modou dama a jox cër mais dañuy làmb te di wax supporter yi man xamal làmb Mansour bi sànq dama ko ne yow comme yaa afataate yow da nga waroon a ñëw taxaw. Mansour dina ñëw léegi. parce que xam nga tax mu a taxaw fii moom moom moom événement bi ñun ñu ko si jàppale mu nekk jàmbaar lool. ñun ñoo ay tarkindaa tarkindaa moom tarkindaa buñ ko bàyyi tarkindaa mooy koo xam ne doo bàyyi waxuma la mooy kiy dégg rek. dem ba ci biir ki fa. mais tarkindaa. tarkindaa mooy ki dul bàyyi te tarkindaa. lu tar xam nga lu tar. lu tar waaw lu tar mooy tarkindaa. turkindaa lu jur. lu jur mooy yambar koo xamante sa xel day war a nekk fii nga dem ko gën a. nga ko fële. waaw déglu ma wax la. waaw ma bëgg leen déglu ko. lamb ji dafa jaral lu ne. waaw ndax loolu moom la man bëree ma ay Modou Kese de. dafa am ñuy bañ. ñoo xam ne dañoo nekk si temps bi. ñëppay ñëw événement la kon li ma bëgg mooy Mansour suñu digganteeg sécurité yi nga bëgg nga lal si jàmm nga wax ne nag ñun seeni tenue ak ñun civil benn na ñoo bokk waxu papa bi ñuy ñëw si yoon samay supporters yëpp laa bàyyi jàmm gën ne leen fii cinq personnes lañ ma convoqué parce que bëgguñu violence lu ñu soxla mooy combat bi kuy ñëw na sangu ba set dox nanga bu jëlee kenn homme de tenue yi ubbi leen bunt jàpp sànni ko fële. waaye sànni moom dóoroon na ma Arène Nationale. dégg nga man balaa nga may dóoraat. Modou nangul lool. Modou. sa waay nee na sëq sànni la bi sëq sànni. wax nga ko baax. wax nga ko baax. sëq sànni la wax de. dama wane. eh combat bi sëq sànni la. ah ok am na solo yàlla ñu déggaloon mais mbay juuf moom lañ jot ah. mu wax père Maxime yàgg ko dégg mu mu mel nga di ko ñàkkante di ko ñàkkante ba tey yegg si ba ñu bëri jàpp ne góor ëppatu la doole te dégg mu wax maanaam seen wax ko mu confirmé ko mooy fa mu jaar la say morom muy Ama muy Boy Niang maanaam xeex ak ñoom gañ leen ci xeex daan leen loolu lay def loo koy tontu bii du yooyu. loolu mooy kàddu bii du yooyu. Tarkindaa bii lii la soxla. lii man soxla wu ma soxla wu ma yeneen yi de bii laa soxla bii. bii nga xam ne Manga 2 moom la teg ci boppam. bii nga xam ne Yaya Diop Yékini moom la teg ci boppam. bii nga xam ne Mouhamed Ndao Tyson moom la teg ci boppam. waaw bii bii bii. bii ama seen seen teg ci boppam. bii Mor la yore ak. bii Mor la. ñoom ñëpp si boppam. Dakar bii di bët France bii laa soxla bugguma yooyu bi gaynde bi yor eh bi gaynde bi yor moom laa soxla xam nga kii lu tax suñu làmb maa moom di neex dafa am lu nit ñi xamul dafa am lu jaar suñu diggante te barke alxuraan làmb lu tax ma dindi loolu mais ku bëgg a gis prix duur prix duur làmb joo xamante ne sama baxam laay teg ndengeen sama yaram ñeme jam-jame suul tàgg nga xam ne tardement bi ñëw na moom laay bëree mais du ma ko dépassé parce que bi may ñëw ne li ma la ma a jox cër mais dañuy làmb te dama ko ne yow comme yaa ëppalaate ñëw taxaw. Mansour dina ñëw bi. ko si jàppale mu nekk jàmbaar lool. ñun ñooy ay tarkindaa tarkindaa moom tarkindaa buñ ko waxee moom jàmbaar ñoo bokk ndey ak baay tarkindaa mooy koo xam ne doo bàyyi. waxuma la curkindaa curkindaa mooy kiy déglu rek di dem ba ci biir kii fa. mais tarkindaa. tarkindaa mooy ki bul bàyyi te tarkindaa ah, lu tar xam nga lu tar. lu tar waaw lu tar mooy tarkindaa. curkindaa lu cur. waaw lu cur mooy yàmbaar koo xam ne sa xel lay war a nekk fii nga déglu ko kër gi. nga déglu ko fële. rajo lamb dafa jaral lu ne. waaw ndax loolu moom la man bëriwuma ay moolu kese de. dafa am ñuy bañ. ñoo xam ne nekk si temps bi di bañ. di santeel. ndax yéen bi ñu am ci man. mais boobu ak bëri. y a rien à voir. bi sama xarit yi nekk Amérique. ku mel ni Major Gueye dañoo créé benn groupe sama xarit yi nekk Amérique ma yàgg xam ne depuis 2013 ba bi ñuy ñëw si yoon bi samay supporters yëpp laa bàyyi jàmm gën ne leen fii cinq personnes lañ doon convoqué parce que bëgguñu violence lu ñu soxla mooy combat bi kuy ñëw na nga sangu ba set dox ndànk buñ jotee kenn am na tëri ubbi leen bunt sama supporter